salaamaaleykum rahmatulah salaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaare bu baax di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal wéy leen rek di abonné ci Fall 94 Walf Sénégal waaw ñu ñëw ci waa D-Media waa D-Media nag euh, ku nekk xam ne ni waa CNRA euh, tegaan na leen ay sanction yoo xam ne nii ku nekk xam ne ni sanction yi metti la ndax xam naa ni daal Euh, ba léegi rek euh, mooy euh, li may wax rek waaw te ki ko waral nag sanction yi mooy Ahmed Aïdara ma nga xam ne dafa nekk tamit wax dëgg di fa liggéey te ku nekk xam ne ne Ahmed Aïdara buñ ko xamee ci métier mii lañ koy xam muy métier revue de presse ba noppi tamit wax dëgg yàlla ku nekk xam ne ni Ahmed Aïdara jàmbaar la ndax fa mu jógee ak fi mu yegg si ku dem nag bañ fal la meer wax dëgg yàlla nga ne nag da ngay continuer sa liggéey boobu la ñëpp xame wax dëgg yàlla tamit nag lool lool mooy développement sax loolu mooy développement réew waaw ndax ki nga xam ne ni fal nañ ko ndax xam nañ ni fal nañ ko waaye pare na pour liggéey waaye ndax day bàyyi métier mi nga xam ne nii eh, daf ko doon def ñëpp xamee ko ci te lim am ci métier moomu la ko amee léegi ndax day bàyyi loolu kan léegi dem rek jaaxaan ci ay saalam di dugg ci ay avion di dem a ñëw ndax loolu la war a waaye ma ne nañu ñun daal suñu analyse dañuy waxee réew mi pour mu dem métier mi nga xam ne nii borom da cee nekk bañ xam ko ci ba ba laneen fekkaat ko ci maanaam euh, wax dëgg yàlla ko war a encouragé ci loolu. Euh, bu dee beneen affaire bi ci nag xëy na li tax général nag teg leen ay daan ak yooyu ñoom loolu moom seen liggéey la ñun mënuñu leen cee contexte ndax seen liggéey la waaye daal nañu xam daal ñun cadre bi ñuy waxee mooy. Euh, ab développement réew c'est que boo xoolee occidentaux yi noonu la occidentaux yi tey jii la leen fal ak ca lañ nekkoon ba tax loola ñu fal leen ca loolu duñ ko bàyyi ca la ñuy nekk continuer ci ñun nag fii buñ la falee dangay ngay daal di bëgg a bàyyi sa métier te kii wax digg yàlla moom opté wut pour bàyyi métier euh, ci biñ ko falee maire euh, te ku nekk xam ne ni maire yooyu yaay buum di buumi loolu la nit ñi jàpp te maire yow da ngaa war a doon ki nga xam ne ni da ngaa war a topp ci sa ñi la xam ne dañ laa fal. war waratoo sax amuk jotuk naaj nga nekk sax naan da ngay tëdd ak nelaw wala da ngay nekk ci say saal wala da ngay dem ci ay avion yi yéeg ko wàcc li gën daal mooy nga liggéey ba Sénégal gépp xam ne yow liggéey nga. amaan nag bu dee ci rajo bi wala télé bi ak ci aju loolu nag moom Sénégal ñoom ñoo xam li tax ñu teg waa D-Media ay daan waaye daal euh, bëgg naa daal ñu ñu ñuy tëddee njaaxaanaay bu baax a baax a baax a baax te buñ ko gënee man ñun nag jàngaluñu seen liggéey ndax ku nekk xam ne Babacar Diagne. yaakaar naa ne moom euh, ku ko xam-xam ni yàgg na ci mbirum euh, tele ndax jamonoy sëñ Sambay ba ndeysaan maa ngi gis seen benn vidéo bu mu doon dalal sëñ Sambay du ko laaj mu nekk koo xam ne wax yàlla yàgg na ci mbir mi kon nag wax dëgg yàlla euh, duñ leen jàngal seen liggéey am na ñum ko seqal ñoo xam ne maîtriser nañ ko xam nañ ko waaye daal daan yi nañ koy gën a fal bu baax a baax a baax a baax te jàppale te xam ne ñii seen i doomi réew lañ waaw wax dëgg yàlla seen i doomi réew lañ yaa ngi dégg te ña fay liggéey tamit bari na benn suur bu ñu liggéeyu rek day manqué day day feeñ ci ñoom na nañuy jàppalante dimbalante bu baax a baax ñu xool ni Sénégal avancement Sénégal waaye lii bu fekkee dañ koy def it wax day nekk loo xam daal day xaw a metti metti loolu la moo tax nag ñu ne woon danañ ci def benn vidéo bu gàtt rek ñu ngi siyaare ñëpp di joxaat ñëpp seen wàccuwaay bu baax a baax a baax Fall Sénégal indil leen analyse bi nga xam dañ ko jëmale woon ci Ahmed Aidara ci D-Media gi nga xam ne fa lay liggéey waa CNRA nag teg leen ko mooy ak say ay sanctions yoo xam dañ leen ko teg ñu ngi siyaar ñëpp di joxaat ñëpp seen